Aja Khaira Abiyo, Aja Khaira, Aja Khaira Abiyo. Allah Allah waa am naa contentement tey ñëw fi tey ah ñëw suma koñu maam suma dëkk ah alors man fi laa dëkk ah donc lii yàgg nañ ko def mais occasion la avant samedi ñu ñëw nga sàmmante gaay ah ñu ñëw pour déggee café vraiment man fii suma fier am naa ci contentement déjà ma ñëw fekk sama cousin Moussa gën naa ko gis trop ah yàgg na trop am naa ci contentement loolu yéen leen ko Moussa yéen

daga yëkkati

Thank you. di na yàlla <laughs> waaye bu ñëwaatee fii day mel ni mu jël mu jël suuf daal parce que boo ko mënee dund daf lay seet waaw noonu la demee waaye li ko mën a mën donc tey mu mën a ñëw ñëpp itam six ba nga def pour seet bés bi tey su ma ci ñoom ñaar koo ci far ci laa far mais xaw ma football benn non man nag footballu mooy dem arbitre wala seen affaire damay toog rek faral faral dina am moom taxaw da ngay tey waale ki ko ñaaw Pikine daal laay faral ndax lii bu match bi ku ci gagné tamit ndawu Pikine la waale gagné da nga ndawu bu gagné ma zibilé ah bu gem boo ñaaw la bu boo ñaaw bu bu ma gagné bu ma gagné tamit ma ma zibilé deux zibilations nañ ñii mais da nga def benn phrase bu choqué les gens. waaw bon yàggul dara démb la avance. waaw nga ne waa li j'ai envie de toi waa nee na maa la loolu nii. waaw mu ne ma xam nga français bi nga laaj. mais man sama dictionnaire bopp laa yor maanaam dégg-dégg moom solo parce que envie de seet envie de seet envie de seet parce que seen i boo français selon selon mon dictionnaire <laughs> waaw waaw bu nekkee yéen nag seen dictionnaire yooyu yéen a koy jëlee beneen sens mais man sama dictionnaire en ah, bi seen yëpp en bi boobu quoi kese waaw euh, waa Pikine man la ñu wax euh, waaw lu si topp Pikine moom yàlla def na ñun moom yàlla def na si wàllu aar boobu amul lu ñuy wuti aéroport aar maanaam ah, képp kuy wax aéroport aéroport aar kon ku ko aji ci aar fi ngay ñëw fi ngay wàcc boobu buy dem tamit ci waa Kaolack yi booy yi fecckat yi Kaolack yi fecckat yi ak ñi fu mu nekk ak muy ñëw bi bi lay jaar picc mënoo mënoo mënoo dund aar ba ñëw picc maa la ko wax loolu picc la mën a loolu picc la mën a léegi dugg nañ ah, ko fii ci jàpp xam ne dañ ko jóoni ni ñëpp a mais mais dañu gis euh, artiste seen secteur ñu ñëw ci xam ci waa yi fecc loolu tax ñëw day déplacé comme ni ko jàpp ni bu baax mais dafa bëri waaw a xam ko woo mu daw gis sol sa yére dama ko woo rek barke alxuraani karim mu daw billahi wala par exemple fu mu nekkoon génnoon noonu sol seulement bi rek ma woo ko rek mu ne du ma jaar kër gi sax sol dama ñëw direct parce que li ma bëgg daf maa ñor te dama koy def parce que wax naa ko samay mbokk sama jabar yëpp kon di wax sant yàlla bu baax a baax ba mu sama ndam nag yàlla ndamu ndam ndamu ndamu jullit yëpp la ndamu lislaam la parce que am foo jógee ñëw ci lislaam loolu yaakaar naa képp ku jullit war nga ci kontaan nga sécurité euh, Moustapha dafa kontaan ba ne ko lépp luy war ci ci ci ci nga xam ne mooy tuub bi man maa koy def sama xaalis yakaar naa muy mbégte kon di wax ne vraiment kontaan na daal waaw mais aussi Idaly euh, parce que moom euh, sànq euh, mu ngi wax parce que nee na waajuram bu góor dane ko bis boo tuubee ma bàyyi la àdduna ak àllaxira waaw loolu xëy na man agu agu aguma ceeg man aguma agu ceeg man xëy na nit ki moom majeur la moom moo xam li mu bëgg ba tax mu wax ko loolu agu ceeg man en tout cas moom moo xam li mu bëgg mais li ma wax daal laa xam man comprendre nga mais li ma wax laa mën a wax mais leen loo xam ne nekk na ci moom na xëy na moom moo koy wax direct mais li ma daal ça quatre fois quatre jours moo koy wax lii la voilà merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf liñ taxawal nag kenn du wax ci loolu kenn du ko présenté yéen xam ngeen ko nii ngeen ko ci taxawal waaye nii ngeen ko ci ci fan yi waaye balaa bi mon frère maa ngi lay jaar ndax équipement de déjà waaw gis nga mon frère maa ngi lay nuyu baax baax di nuyu yeneen yi si yëpp waaw si dëkk nag yëpp sa wàcc waay vraiment bu baax baax di leen am d'accord le six waa li ñëwaat ne la ñëwaat na ci mbàtt delluwaat na ci si daala waaw dañ ñëw pour ñu ndax xam nga mooy lépp moom mooy Sénégal mooy ñun Jojo di Sall moo fi leen dëkk maa def yaram te Wally fii fii la dëkk papaam fii la dëkk ay bàjjanam ay papaam yëpp am na bés yëpp day nekk incha allah am na wóor na ma bés bi est-ce que mën nañ xaar euh, samedi le 6 euh, ci ñun suñu xarit suñu papa am na man sama xamal raq laa xale laa baax yem passé rek loolu ay yëfi mag la. Ah, yëfi mag la maanaam place su mais comme affaire de famille dañ ci wax dama leen di ne Sall sa waay est-ce que yooyu jox na ci dara bon li ñuy gars yi di wax ci réseau yi ñu bañ ko wax. amul loolu loolu problème famille la xam naa ne bàyyi ba mel ni ñu tëj buñu kër gi rek waxtaan waxtaan ko waaw. Euh, waaye lii mooy première fois su ma jëm ñu def entretien bi ak moom li ma wóor mooy dañ koy fay te promoteur bi mooy xool li ko nekk dam naan Pikine moom Waly génn bu amee bu ñu wàññee adré Waly génn xam naa fi mu toll ci Pikine gën na Pikine bu baax kon daa beral loxo waa Pikine quoi dama ko wéy yow ban pass nga man ataka ah. ataka est-ce que di nga dugal kay de yee kon lu mu dugal parce que wàll nag ñi nekk ak ñoom ñëpp ay booy lañ mais dañoo màgget <coughs> ay booy ngeen mais màgget ngeen quoi man damay entraîné chaque jour man comme mbër ci ana mbay ñëw na dafa génn dafa génn d'accord yaa ngi ci cinéma bi aussi léegi ci suñu loolu yàgg bëgg la wala dana parce que ñu ngi gis nga yaa ngi piqué sa passion ma commencé foofu hormis musique wala waaw man nag vraiment mooy sama passion musique c'est vrai que bi ma ci juddoo pare dama dem jàng école de ba xam ko am doon mais yàlla moo ma natt ma bëgg cinéma incha allah gën a focus quoi. kontaan nañ kon rendez vous le 6. jaajëf moom daal di def ñëpp rendez vous le 6. bés si base seen en aussi ak ah, gars yi dëm de Paris dafa waaj baax a baax a dëm de Paris waaw. sûrement luy jeex na mais bon du ñaax gars yi dable ci avance bi wala yeneen jours yi incha allah. Sadio boo paree dem Sadio ngay for nekk ci boppam. Sadio yëpp laa la gis. jeex kontaan naa maa ngi seen kontaan naa moom sama. bu demee bu demee ci biir contrôle le ballon attention la déviation de Gueye Sane le ballon day dem premier pied deuxième pied troisième pied météo moom dina toog day wax quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-dix mille pour que Gueye Sane premier pied deuxième pied troisième pied quatrième pied ay la ay la dana ko rey fii Gueye Sane Alassane Djigo de Pikine mu nar a yomb rek ñu koy rey fii Gueye Sane Alassane Djigo de Pikine ba léegi maa ngi yëgal yokku ci la doon jeex

ah kooku combat combat bu rëy combat éternel combat bu rëy ay combat bu rëy booy ñaan yàlla la ko wax ci booy booy ñaan yaakaar ne dañu bëri yaakaar ne te buy bëre bëre ko ko bëri te booy ñaan ci jàppee day def ci te booy ñaan buy jógee ko ko loolu jaaratu booy booy ñaan lépp la kon boo ñaaw ba dóor combat jàll combat dëkk la combat réew la combat bu ko dem ba combat gàcce gàcce waaw kon am na solo combat di dem mu dóor ñu daal daal ci di ana ko daal na bu ñëw ni wala ko parce que mo do daal daal Ama Baldé Kini kini details kusol bet details na right. Ali